عليك صلاة الله ثم السلام فبرهام جد عاشق فيك واميق على رسول الله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به waafu anna waafir lana warhamna anta mawlana fansurna ala alqawmi alkafirin allahumma inna nabra'u ilayka min hawlina wa quwwatina wa naljahu ila rahmatika wa quwwatika wa natlubu minka al-afwa wal afiyata فيما بدر منا من من سال فيما بدر منا من الاخطاء ونسالك تبارك وتعالى ان تجعلنا من المؤمنين الذين تقبلت منهم اعمالهم وصالحات وتجعلنا من الذين يحبون ويحبون في الله لله إلى الله تبارك وتعالى ñu sant yàlla bu baax mi may xéewal gu mag yi ndax li xéewal yàlla rek la mbokk yi sëriñ bi nañu ngi sant yàlla bu baax ci yàlla mi ñu may xéewal gu mag gi ndax lii xéewal yi yàlla rek la xéewalu tasaare yërmandeem la ci kaw jaam yi xéewali tasaare yërmandeem la ci kaw jaam yi imaam bi waxee léegi ci xutbaam. ni ko imaam bi waxee léegi ci xutbaam ngeen dégg. ku yàlla may ku yàlla may ngëneel noonu nag. ku yàlla may ngëneel lu yem na ko sante yàlla. na ko sante yàlla. ci topp yàlla. ci topp yàlla. def loo xam ne. ci def loo xam ne. daf lay jegeel. daf lay jegeel. waxtu wu nekk. ak sa borom. ak borom. di gën a say may. di bàyyi ko ci moom. sëriñ bi nañu ngi gërëm monsieur le préfet. ak monsieur gouverneur. ak président de la république. ak président de la république. ak premier ministre ak gouvernement am yëpp. yal na yàlla jàppale leen. li ngeen bëgg def ko pour réew mi. yal na ko yàlla yombal ci seen loxo. génne barke Sénégal ci seen loxo ak ci seen ay. yal na yàlla génne barke Sénégal ci seen loxo ak ci seen ay. yal na yàlla yëkkati Sénégal. yal na yàlla dolli Sénégal. su fekkee waxtaan nag. li élément di wax doy na sëkk mëte na joxe na. xanaa ñu ndokkeelante rek ñun ñëpp. ñu ko dalee ci màkk ba fii. mboolem réew nekk. ak mboolem fure mboolem réew yu jullit nekk. boo demee ci liñ nekk nii ñoom ñëpp ci lañ nekk. boo demee ci liñ nekk nii ñoom ñëpp ci lañ nekk. uyu nangul yàlla. uyu nangul yàlla. def li yàlla ci li yàlla santaane di ko def. góorgóorlu bàyyi li yàlla sant li ñu yàlla aaye. góorgóorlu bàyyi li ñu yàlla tere. loolu rek ci la jullit ñëpp nekk. loolu nekk. Arafat di ñaan yàlla. ñëpp a ngi daje Arafat di ñaan yàlla. daje Makka di ñaan yàlla. daje Makka di ñaan yàlla. daje ca Kaaba ga di ñaan yàlla. daje ca Kaaba ga di ñaan yàlla. loolu la yàlla tasaare ci àddina bi yëpp. loolu la yàlla tasaare ci àddina bi yëpp. muy benn kàddu boo xam ne. nga dégg ko muy benn kàddu boo xam ne. ñëpp dañuy wax yow yàlla. ñëpp dañuy wax yow yàlla. yàlla nga ñu dimbale. yàlla nga ñu dimbale. yow yàlla yàlla nga ñu nekkal. taxaw. yow yàlla yal na nga ñu taxaw. yàlla yal na ñu sàmmal suñu réew. yow yàlla yal na nga ñu sàmmal suñu réew. yow yàlla yal na nga ñu dollil ci suñu réew xéewal. yal na nga dimbale ñu ngi ko dénk ci seen loxo ñu atte ko. defal leen leen ci tawfiix. defal leen yombal. defal leen yombal. Sénégal di gént pour gis ko Sénégal yëpp. tool yi Sénégal di gént pour gis ko ci Sénégal yëpp. ci yiw ak mbaax ak kawe. ci yiw ak mbaax ak kawe. yàlla jaarale ko ci seen loxo mu am. yàlla jaarale ko bi la ñu leen di ndokkeel ñëpp. ñu ñaan yàlla yal nañu yàlla may. yiw yi ñuy ñaan fii. ñu tax a génn fii. yiw yi ñu tax a génn daje si fii. da ngeen li ci xutba gi wax. loolu lu kawe la. ndax ba si tey bii rek. nit mën na cee liggéey liggéey boo xam ne. juróom benn junne yi at lay diire. moom lay diire. te benn liggéey bu ndaw rek la tey jii la ko yàlla may jàmbi. maanaam nga xam mbaaxu maanaam nga xam mbaaxi yàlla. nga xam yaatu yàlla. xam am amu yàlla. nga xam am amu yàlla. ba jaam buy ut wéerukaay. nga xam ne jaam buy ut wéerukaay. na wéeru ci yàlla rek. na wéeru ci yàlla rek. ndax yàlla rek a mënal jaam bi. moo ko mën a defal. lu ko neex. lu ko neex. moo ko mën a defal safaan itam. waaye ñun mënuñ safaan. waaye ñu mënuñ safaan. attanuñu ko it. mbaax ak ni wag yëkkati ko rek lañu am moom lañ yaakaar itam ci yàlla te yonent bi sallallahu alayhi wa na yàlla nee na yàlla ci sa rafet njort gi nga am ci moom ci sa rafet njort gi nga ci ñoom rafet njort gi nga am ci yàlla rafet njort gi am ci yàlla yow jaam bi noonu la yàlla di nekkee ak yow yal nañu yàlla nangul yaara bi yal yàlla may barke yaara taxawaayam. yal na yàlla yokk suñu élément yu taxawaayam. yal na yàlla dundal suñ juma. yal na yàlla dundal suñ juma. yal na yàlla dundal suñ dëkk. yal na yàlla dundal suñuy mbooloo. yal na yàlla dundal suñuy mbooloo. ci àndoo. ci ci bëggante. ci bëggante. ci dimbalante. ci bañ a lorante. ci bañ a yàlla defal loolu yaara ah. ñu ngi ñaanal waa Palestine. sëriñ bi ne ñu ngi ñaanal waa Palestine. yal na yàlla dimbale leen ci seen xeex bi. allahumma salli ala sayyidina